dikkati na fi mu ne day Cheikh Anta Gueye tamit moo tax ñu ngi koy tullee bool bu ne turbine yéene kaay ne ma Cheikh Yérim Seck lii wër bi mu duppee Macky Sall face à l'histoire daf caa nag waxal Ousmane Sonko waxal ci Seydina Omar Touré moom Seydina Omar Touré ne Cheikh Yérim sekk dama koy porter plainte la mu ma waxal ci téeréem bi amul defuma ko ab citation directe laa koy jébbal gannaaw moom Ousmane Sonko daal dina koy defar citation Ousmane Sonko naan Cheikh Yérim Seck kiyeti turbine yéene kaay ne Ousmane Sonko yamu ca de dafa jël ab dédicace boo xam ne moom Cheikh Yérim Seck koo defal ci téere bi naan kon yow Ousmane sonk ki teree nelaw président ma ki sàll yëngal pale ba yow laa ko jox Ousmane naan stratégie la de ak feem la mel ni ku may neexal ndike yoo mag may yàq ndax la mu wax ca téere ba dara dara da caa amul moo tax nag moom Ousmane Sonko mu ne Cheikh Yérim sekk ci boppam la yóbbu ca yoon ngir mu daal di indi ay gindi ci wax ji léefa yéene kaay ne ger ga tàmbali na diggante Ousmane sonk la Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck ne Ousmane Sonko bés boo ma kalaamee yoon dégg daal yi ndax nag ci citation bii nga may yónnee danaa jël ni am naa ko ca la nga doon def ca corniche ba gambien ba ne ko fàng ci dëkk bi ndax nag benn exemple laa jël ci yow jaarale ko ci suite bot yi su ma doon wax ci yow ak ci say jëf lii wër laay bind Ousmane Sonko naan kon Cheikh Yérim Seck yow yaay kan ndax yow réew mi war nga fee xasum gor dëgg-dëgg ndax yow réew mi Cheikh Yérim Seck bu ñuy wax ci waxi mër su war nga ca àddu Ousmane Sonko naan kon da ngay muus muuslu waaye nan nan la da ngay xas-xas lu président Macky Sall fekk ay adversaire am nga bëgg laal lii ci boppam lan dul nangu tey duñ ko nangu ëllëg citation baa ngay ñëw toogal xaar yéene kaay ne ma booba Ousmane Sonko day ñu koy tàbbil ci procès yóbbu nañ ko nag ca chambre criminelle ya chambre criminelle ya nag méngoo ak cour d'assises ab procès bu nar a doy waar ci Ousmane Sonko Sud Quotidien daal di ma moom Ousmane Sonko day yóbbu nañ ko ca chambre criminelle ba coowal Sweet Beauté la moo ko fa daal yóbbu maître El Amat Thiam consultant ci droit ne saa si tembe kay kenn mënagul xam kañ la procès ba di tàmbali ndax nag parquet bi ci boppam mooy fixé date ya l'observateur ne coowal ab coow la boo xam ne ñu ngi ko tàmbalee ci viol bu nu jiiñ Ousmane Sonko ji ñi ko it ab menace de mort tey jii mbir ma ma nga ca chambre criminelle la ñu war ko fa attee le ko ne position assise moom la Ousmane Sonko ak Adji Sarr jël Ndeye Khady Ndiaye di yéene kaay bi ne ma daal dinañ koy tuumaal ci mbir mi moom it ca chambre criminelle la daal di jëm direct news ne ma ma ngay de te ma ngay ñaaw de këcc ci sax def ci kanamu Ousmane Sonko ndax nag dossier bii ña nga ko war a attee ji yéene kaay bi sampub laaj ndax buy dem ca tribunal ba ñu koy attee day libre wala day jaar kaso tribune yéene ko kaso lay jaar enquête ko di jeene déet mën naa libre dem wuy ji moom Ousmane Sonko direct ci news ne gars yi nee ñu moom Ousmane Sonko mën naa tàbbi kaso laata bi de bu nekkee ni nag bés ba ñu ne ci lañ koy attee moom Ousmane Sonko nag teewul ñu war koo téyendi nag ngir mën ko yóbbu directement tribunal attee ko yéene kaay bi ne ma ay awokaam ci boppam ña ngay tàmbali riposte ba fas yéene nag jaamaarloo ak attekat bi ndax nee ñu coow li ci boppam lu ko andi fii la ñu xamul Walf Quotidien ne ma coow li coow li coow li tàmbaleegul ci réew mi ndax nag saa si téembe xeex gu ne dina amati ci réew mi Ousmane Sonko nag jurisprudence bu Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall mbaa du ko laal Jean Charles Biagi analyste politique ne en tout cas du yomb de buñ ko bëggee tëñë tëñëxee moom Ousmane Sonko def ko ba yub sarax bi nin defoon Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall bu ñu koy rendi faaw mu yëqu na mu yombee ci xaaf yombee ko ci Karim Meïssa Wade mënta yombe nii ci Ousmane Sonko Walf ne ma taxaw leen juge ba nga xam ni moo koy atte turam xam nañu ko l'enquête ko di jeene ma ab procès bu toxique yi ci guuta nartee ñu tàbbal ci niir Ousmane Sonko ma nga ca tënku cib atte bi bés bi la journée coowal salon moo yóbbu ca chambre ya maître El Hadj ndam daal lañ ca am ay avocat Ousmane Sonko di xool nees def ba procès bii du daal di antu maître Étienne Dione ci les échos yéene kaay ne coow li mooy dan doon xaar ab bàyyi noolu ya la jagat jagat jagatee coowal Ousmane Sonko lii nga xam ne sosi neen la andi ko ba ci chambre criminelle yi moonu jaaxal maître El Hadj Diouf ne en tout cas Adji Sarr moom la muy sàkku mooy média yi teg bi ñëpp di seetaan maître Ibrahima Mbeng avocat Ndeye Khady Ndiaye ne la ma bëgg xam dëgg-dëgg mooy ci lan la juge bi tënku ba ni tey jii dañuy atte Ndeye Khady Ndiaye ak Ousmane Sonko 24 heures yéen kaay ne ma réew mee toj réew mi nag fii la toll bu ñuy jëlee coowal suite boteli di ko yóbbu di ko atte réew mi mi ngi toll ci nit koo xam ne dafa yore ab bataaxalam bind ab téeréem ñii mu leen cay sànni xeer ñii ay fleur saa si tembe nag dafa am nit yoo xam ne dafa mel ni nag dogalub jàmm wala dogalub dal ci réew mi seen loxo la tàbbi lan ñu woon réew mi cib série akum mu daal di tàbbi géej ñu di fas yéene jaawaar lay lépp ku nag dox ci say intérêt fi réew mi toll vox populi ne Serigne Mourtala ibnu Serigne Abdou Ahad Mbacké daal xamal na président Macky Sall ne ko réew mi bañ la koy jox ci jàmm lañ la ko joxee bañ la koy jox yow président Macky cib dal lañ la ko joxee bañ lay jox réew mi it ñum lañ la ko joxee ngalla waaye delloonu ko ci jàmm dellooñu ko ci dal delloonu ko ci ñum yéen kaay bi mel ni ku naan maa ndax jàmm joojee dina yomb ndax saa si tembe gars coppet ci bii bii ni ko rajax lan dëkkee de bu ñaar génnee ñetti dugg rappeur bii di nit dof ci boppam daal ko yóbbu ci gardaaw yi ma nga ñu teg ci ndoddam daal di mitti lool libération yéen kaay ne ma procureur ci boppam moo sàkku ñu indi nit dof ndax nee na nag dafay woote fépp ci réew mi waaye tam di menacer ay magistrat laas yéen kaay ne ma réew mi tënku na gannaaw politique bi chauffeur si daal dina ñuy tënk réew mi taxawal ko ca Kër Massar ña nga xam ne ñoo fa doon jël woto dañ leen dàq ca Ziguinchor moom daanaka dara doxul ca département bu Mbour mu am ralenti ca Fatick moom daanaka ñëpp topp grève ba police bu Caaroy daal di jàpp juróomi nit ñoo xam ne dañ doon tëntëneel ay client ngir ñu bañ jël oto moom def leen lu leen sax du teree dogal yi nu jël ci réew mi dañ koy yeggali moom la soleil yéene kaay ma Amadou Ba nee bépp dogal boo xam ne day jëloon nañ ko ci conseil des ministres ba nañ ko daal di matale bu kenn may leen transporteurs yi bu nu weñ loxo ba ñu daal di ciy deltu ginnaaw tribune yéene kaay ne ma Moussa Sow ak Biram Tine ña nga xam ne ñoo moomoon ñaari oto ya defoon accident ba ca sàkkal daal di leen di téye boo moytul kaso la ñu jëm juróom benn weer jàpp benn atu kaso boo moytul daañu ko tëdd libération yéene kaay ne ma scandale am na ca mairie bu ngàcc naw de mairie bu nag yaay faatu Diagne yéene bi ne ma ay marché yoo xam ne dañ ko doon jébbal de service du ca def lenn terewul nag dañ ko doon jébbal xaalis ca gannaaw société ba nag ñu ne Babacar Ndong moo fa nekkoon ab assistant communautaire ca mairie ba la nekkoon nag responsable des marchés ba ñu ko jàppee moom Babacar dafa daal di xam le ni lañ koy tuumaal dëgg la waaye nag dafa ne lu njiit njaag maire ba di it coordonnatrice bu promogem bii di yaay faatu Diagne moo ne ci ginnaaw moo koy def loo bu xaalis bi génnee moo am cay commission coow la coow libération yéen a kaay ne ma yaay ci boppam moo feeñal boppam dafa defoon ab plainte ngir ay données yu ñu effacé gaaya enquête ba yem ci lii tribune sport ne ma sunu gaynde yi tey nërmeelu nañ ngi démb ci chan bi benn bal ci dara lañ leen dóor ñu fas yéen nag wuti seen qualification ci ñetteel bi jongante sunu làmb ne ma Zarko ak Ada Fass it at dootuñu tegati seen tànk ci làmb ji bira seen jiital CNG ne lu waroon am la ndax ci sursi la ñu nekkoon saa si tembe nag la ñu bëgg mooy kenn du defatu la saf ci biir lamb ji respecté waxtu yi respecté adversaire lu ko mooy ñu dàqee la lamb ji ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yendoog jàmm la nuyu maa ngi laa fay le grand maire na ngay tey département le maire invisible ah la yow day sa bopp sa xalaat ngay wax a topp ci dara. CHAN 2022 sunu gaynde yi dañoo nërmeelu ci kanamu Uganda. waaw te moonte ni Sénégal nag démb ci kanam Uganda ngir nag lu soxal seen ñaareelu génn ci CHAN bi ñoo diminué woon nag match bi yëpp waaye nag ci cappaandaw ga Uganda moo ci mujjee am benn dugal ko Sénégal amoon sax penalty raté ko ñoo ngi en direct waxtu wi ak Soxna Fall foofu ca diwaanu Anaba soxna gannaaw ba ñu la nuyoo kon lan lañu mën a jàpp nag ci defetu démb bi en tout nekk defet bu améran ci gaynde Sénégal yi. Ibrahima Anta Mboup ginnaaw bi ma la fayee nuyoo jàppal ni démb gaynde Sénégal yi dañoo ñàkk seen diggante ak Ouganda muy défaite bu njëkk gannaaw victoire bi ñu amoon loolee may Ouganda mu nekk premier ci poule B bi relancé waat groupe B bi sax nag ndaxte Côte d'Ivoire ak RDC Congo dañoo daal di match nul Sénégal pourtant moo dominé woon match bi waaye fexewul. concrétiser occasion yi mu amoon ñu raté waat beneen penalty comme ni ñu ko gisee woon seen premier match contre la Côte d'Ivoire raté penalty euh, tey nag euh, loolee tax ñu ñàkk bile match ñu ngi waajal nag euh, dem commencé waat liggéey bi wala wéyal liggéey bi ngir waajal seen match bu mujj seen diggante ak RD Congo lay daal di doon ñoom yaakaar ñu am ci ndam Sénégal nag li am solo mooy njëkkante place bu njëkk bi da lay permettre doo def déplacement. da ngay toog anaba mais sinon boo jëlee deuxième da ngay def déplacement te yooyu day compliqué ci jamono joo xam ne tey huit degré la daal di tolloon mu doon taw en même temps mais teewul gaynde Sénégal yi tenir nañu fexe nañu ba dominer bile match waaye fexewuñu dugal ci bile match moo tax ñu ñàkk boobee match bay mante ñu ko o jaajëfal bu baax a baax di fàttali nag ni kon démb Sénégal dafa daano ci kanam Ouganda benn bal ci dara RD Congo ak euh, ñii di waa nag euh, Côte d'Ivoire zéro but partout la ñu def en tout cas ñu xoolee contexte match bi nekkoon na match boo xam ne gën Sénégal war nañ ko mën gagné bu ñu sukkandiku ci Pape Thiaw mi leen tàggat ak euh, Cheikh Sidibé Cheikh Sidibé boobu sax moom war a te bi en tout cas mu gis na ne loolu yàqalu ko dara tey dañuy gën a defarwaat nag ngir waajal seen diggante ak Côte d'Ivoire ñu teewlu seen kàddu ak Soxna Fall mais boo xoolee match bi xam ne xale yi. lu euh, euh, ñu leen waxoon nu bëri def nañ ko mais malheureusement euh, duppe nañ tey jii nii beneen penalty loo xam ne tamit suñu fort la woon boo doon xool suñu équipe bi mais malheureusement tey jii nii dugul mais manque de réussite la mais tamit il faut tamit ñu féliciter équipe bu Ouganda bi gagné tey ñu xam ne tamit plan bu mu tegoon comme moom moo gagné dañuy ne réussir na donc ñun dañuy accepter dañu continue liggéey te xam ne dese nañu benn match boo xam ne buñ ko gagné jël sax première place met na trop met na trop parce que yaakaare wuñu ko woon fii nii quoi mais football la book moom des fois mën nga ñëw ñu gañe la des fois nga dominer tamit gañe mais c'est le c'est le football quoi manque de lucidité la rek de lucidité après mooy loolu quoi mais après daal dañ gën a liggéey continuer si suñu lancé pour jéem a préparer suñu blessé match bi nekkul loolu di tax ma raté penalty moo tax ñu xaw a mais ça arrive des fois quoi match bee passé am na am na keneen ko raté woon penalty bi teewul tamit ñu ñoo gagné match bi tamit ñu raté euh, ñu gagné ñu mais football la quoi. ñu waxtaanee nawetaan ASC Balanti moo jël ndam li ci première édition tournoi bu coupe du maire bu Tangori. waaw Tangori kon diwaanu Ziguinchor la kon ASC Balanti moo mujjee nag jël première édition coupe du maire bi mu doon nag dox ci diggante kon ASC euh, Tangori ak euh, ASC Balanti en tout cas lu ci mën dem daal euh, ci ambiance bu am solo lañ ko doon amalee ci fair play foofu ca diwaanu nag Bignona mu nekk occasion ngir nag maire bi di xam le ni ci lu yàggul dara nag fa tabax ab stade boo xam ne répondre normes yi nga xam ne nag moom la ñu tekk ngir ñu mun ci am football bu mucc ayib maire bi euh, Sidia Badji lay wuyoo ñu teewlu ko ak Abdourahmane Diallo. li ma yëg tey daf ma waaye nag dama yëg loo xam ne xale yi doon xaar xale yi lii la yuuxu ay at ak eet gis naa ay xale yi nga xam ne euh, xeex nañu xeex boo xam ne ñoo bokk te kon mbétte la xol bu sedd la te naa ñaan naa yàlla lii doon loo xam ne lii ñëwaat at ay raad boo bëggee am sécurité ci ci football daa fekk nga am nga am clôture te it bu soobee yàlla dinaa liggéey commune Tangori am un communal bi nga xam ne dina tudd dina répondre ci normes yi am boobu xeex boobu teg naa ko sama mu nekkoon kon Sidi Badji nekk maire bu Tàngoor yi ñu wax ni nag lu soxal sax boobu lay final en tout cas kii di euh, entraîneur bu Casa Sport di Ansu Djadji moom teewoon na ko mu nekkoon occasion boo xam ne jàpp na dina permettre ñoom tamit techniciens yi ñu mën a nag gën a xool euh, ndaw yi nga xam ne ñoo ngi football ci boobulee gox moom ne mën nañu intégrer équipe bu Casa Sport ñu teewlu kàddu Ansu Djadji ak Abdourahmane Diallo ñun situation yi nañ mën a am jot ñoo xool pour xam ndax am na fi ay talent yi nga xam ne war nañ mun a compter ci ñoom pour équipe Casa Sport bi comme li may wax rek fii gis naa fi vraiment li nga xam ne lu raar parce que y' a l' esprit sportif parce que équipe bi mëne newul di gérer temps newul di euh, tëdd newul dañuy jouer ba match bi jeex donc vraiment c' est important dans l' esprit parce que aussi loolu ñu war a développer pour nit ñi am temps de jeu mais pour vous dire vrai état terrain bi permettre la ñu exprimer comme ni mu waree mais boo xoolee da nga xam ne am na xale yi nga xam ne jàng football mën football te bëgg nañ football bi parce que am na fa ay yi nga xam ne gis naa leen par rapport ak seen touche de balle yi ak seen vraiment il des joueurs yi nga xam ne sur qui on peut pour le ma euh, région Casa Sport bi pour équipe yi fi nekk ci région bi yëpp. ñu <laughs> waxtaanee volleyball ah foofee sa tëngeej nee ñu dañu bëgg door ko ci l'école yi si jàppandalu waa fondation Sococim waaw li ni mel sax jàppal ni commencé nañ ko daanaka sooy xool lu toll ci fukki l'école foofu ca diwaanu tëngeej commencé nañ nag euh, lancé lu soxal la phase pilote ngir nag gën a jëmal boobu discipline di volleyball euh, ca l'école ya am na si sax yenn ci ay nag enseignants yoo xam ne jot na leen formé lépp rek ngir mën a teel a détecté ay talent jëmale nag ci euh, volleyball ca diwaanu tëngeej ñu fekk fa Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak Mansour fukki daara diggante Bargny ak Tëngéej ci bu njëkk bi ñoom lañu daal di njëkk tànn ci li soxal programme boobee ñeel volleyball ci biir école élémentaire yi. ne sont pas les coachs de volleyball ñoom dañu leen tàggat ba noppi ci makaanu centre culturel bi ñi nga xam ne ñoo di coach yi ñoo leen formé jàngal leen ñoom jàngalekat yooyee li nga xam ne moo di technique volleyball. une transmission aux élèves. initiative boo xamante ne dana gën dooleel la ñuy jàngale ci wàllu tàggat yaram ci biir l'école njëkk ba xamuma woon dara ci volet dama ko doon dégg rek ndax activité la boo xamante ni li muy woo ci xelu xale bi dafay bari parce que laaj na teey bi laaj na réflexe bi dina am xale yoo xamante ni doon dañ nelaw ci classe yi ak activité sportive bi dinañ gën a yeewoo. kilifa gi jiite inspection bu Rufisque commune jàpp ne faaw nag ñu xoolaat noonu lay nga xam ne moom la ñuy tabaxee suñu daara yi. suñu yenn école yi niñ ko tëggee am na ñoo xamante ni boo Euh, daanaka école yu bëri fii nii dañu am problème espace ko mais bi nga xamante ni nag léegi daal loolu dañ ko mën a xëy daal yaa yaakaar euh, li nga xamante ni mooy projet académique bi. lekkool yooyu ñu tànn nag ñoom daat nañ leen jëbbal ay matériel ak équipement bu aajowoo ci wàllu volleyball. jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane jëmmal nag volleyball ca duwaanu Tëngéej xam naa ne la grand-mère moom dina ci euh, participer ngir dellu siwaat ci sport bi kon di la jaajëfal di la jox dig daje incha allah. man naa sama doom sama doom yi mën nañ participer ma nekkatuma élémentaire. Ah, yow de xam naa ne say say say say oom baaxatul. jërëjëf jërëjëf <laughs> loolu biti la fanaan ayca Pape Mante moom di ngeen a ndax moom 12h ak 13h ci Zik FM. incha allah oui 89.7 n'est-ce pas.